asalaamaaleykum internet Leewtoo TV mardi 23 juin ñu ñëw ak yéen li gën a fas ci yéene kaay tey sunu lamb la ñuy doore ñëw ak Gaston Mbengue mu dévoilé li nga xam ne mooy plan beewam ginnaaw yenn VIP yi fas yéeneew ñu bëreek yenn espoir yi Gaston Mbengue ñëw na nag ay yeneen combinaison ki mel ni bay 52 Reug Reug Lac de Guiers 2 Eumeu Sène Sa Thiès nee na bu nga xam ne kii di Tapha Tine dafa bañ jël Reug Reug incha allah du ko tëgg da koy daal rek tegee de côté amul nax amul temps bi nga xam ne da koy perte dafa am ay projet yoo xam ne ne daf ci nekk te bëggul dara lu ko yàqal ci même lancé boobu noonu waa Fass kii di Khalifa Dia daal di génn def sorti ne kii di Gris Bordeaux du jël ki nga xam ne ni mooy Sa Thiès parce que booy xool nag adversaire u Gris Bordeaux du kenn ku dul euh, Balla Gaye 2 di mag ki nga xam ne ni mooy Sa Thiès suñu lamb des si loolu ba tey ñëw ci rëg-rëg ak Sa Thiès daal def le rêve envolé maanaam seen rêve bu mu toll nii yaakaar bu tas lay doon parce que ñaari ñi leen proposé yëpp kenn fas yéene ci bëri ak ñoom nuyu ki nga xam ne ni mooy Modou Lo ginnaaw bi mu nekkee roi des arènes Modou Lo def na li nga xam ne ni mooy première saison blanche am daal di garder li nga xam ne ni mooy couronam te bëriwul mu des ba tey ci suñu lamb ak ki nga xam ne ni mooy Moustapha Guèye sunu lamb ñëwaat ci carrière ñëwaat ci nga xam ne ni daal na leen tuddee ko le bureau des séeréer ki nga xam ne ni mooy docteur Faye Ibou Ndafa Aline Diouf maam Njëmbaan ba si ki nga xam ne ni mooy Langsaane ñoom ñëpp ki nga xam ne ni mooy rakku Mbaye bi daan leen jil bu kenn dul werante ñu dem seet ki nga xam ne ni mooy euh, Naar Touré di doom ci nga xam ne mooy tubaabu Joor nekkoon ci lamb bi ba si yaa ngi dem États-Unis immigré naar nag ñëwaat na wax ni bëggaat na wàcc si li nga xam ne ni mooy arène bi bi yoon naar naar daa dëkk ay adversaire yu ci mel ni Sa Thiès Lac Rose ba si Malick Niang nee na pare na pour bëre ak ñoom Bour Sine ñu fekk ko tamit ci nu lamb Bour Sine de nekk sa jëf soog nekk moom nee na ki nga xam ne ni la bëgg dajal lu kenn ko dul Mama Lamine ñu jógee foofu noonu dem ca record fekk fa Abou Ndour Abou Ndour andil ñu tey koo xam ne gëj perdu maanaam koo xam ne nii mënoon na bëre trop amoon na place ci lamb ji mais depuis quelques années dafa préféré bàyyi li nga xam ne nii mooy lamb ji dem ne mooy États-Unis palmarèsam mi ngi ci 10 victoires ak 4 défaites ci loolu la nga xam ne nii mooy arène bi ñu dem ci kii xam ne mooy Amaneex moom nag dimbër parfois combat jafe ko lool Amaneex nag période bi metti ne moom yëgu ko parce que guddiñ tool jënd na li nga xam ne mooy gaal boo xam ne jar na lu ëpp trente trente millions fas koo liggéey jox ko ay xalitam tam ñu di si liggéey ku nekk dàq si wërsëgam comme ni ñu ko waxee rek comme borom alal yaa ngi dimbalante seen biir pourquoi pas ñu si des ñu jéem a jàppalante ba ku nekk am si jàpp ñu dem fekk nga xam ne ni mooy pap konaate di coach fi nga xam ne mooy kaay baax moom nag ñoo na joxe ay affiche am Modou Lo Ama Baldé Lac de Guiers Gris Bordeaux ak tafaatin Tine Eumeu Sène loolu la jàpp ni mooy affiche yoo xam ne ni bëgg na ko gis déwén incha allah mu daal di taxaw ñu des ba tey bi yoon ci lion yi nga xam ne ñooy représenté Sénégal ci wàllum làmb Isabelle ak Adama Diatta ñoo defaat seen cri yu cœur wax li nga xam ne moo leen naqari ndax ñoom jàpp nañ ni lii ngay dund ñoom injustice la parce que Adama nee na injustice bii du li nga xam ne lu bees la ci lamb yàgg nañ dem andi def ay jaloore ñëw mais ba léegi amuñu reconnaissance Isabelle Diatta Isabelle Samb ñëw tamit ba tey ci loolu ne ñoom musuñu am moins de reconnaissance maanaam kenn musu leen wax gàcce ngaa laama kenn musu leen defal dara loo xam ne ni tey euh, wane nag am na luñ liggéey Sénégal ñi suivre Leewtoo TV loolu lañu andi woon tey ci seen revue de asalaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal ñu ñëw ak yéen ci seen euh, revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour après jàngat bi après revue de presse bi dañuy daal dem ci jàngat bi ànd seeg euh, sama mag Ndeykumba Fall Ndeykumba nuyu naa la. madame Niam maa ngi lay nuyu di yaayu paate maa ngi lay fay. <laughs> ñu dem si euh, li nga xam ne ni mooy jàngat bi commencé ko ak Gaston Mbengue ak super classe bi nga xam ne nii annoncé na ko Gaston nag ñëw na tey. nee na su fekkee dafa am ay VIP yoo xam ne dañuy bañ yenn ay espoir moom nag nekku fi di négocier parce que amul temps boo xam ne da koy perte day daal di def changer combinaison yi ndey kumba Aïcha euh, xam nga ni Gaston comme lu ma la waxoon dégg nga démb rek comme lu ñuy wax rek moom euh, slogan mooy ku mbay mbay sàmbay rasu su su mu yenn mër yi bañee rek moom day wutaat beneen plan comme lu ñuy wax ndax gis nañu démb waa kër Tafatine génn na ñoom bëriwunu ak rëg-rëg moom nag noonu nag bu mu amee comme la ñuy wax rek tontu du forox tey xëy na tamit tontu waa kër ñoom euh, ki nga xam ne mooy tafaatin nee na leen tey ji su fekkee yéen d'accord d'accord leen rek rëg-rëg ak ak euh, mën na jël rëg-rëg boole ko ak ki nga xam ne moom mooy Bombardier jël ki nga xam ni mooy euh, Eumeu Sène boole ko ak ak la déguère donc affiche am yooyu daal moom mooy plan B te nee na amul temps tamit pour perte mais je pense que tamit wax na dëgg ndax ak situation làmb ji soo ñëwee am promoteur boo xam ne demoon na ñëwaat dikk nee na pour sukkali làmb ji donc su la démarché ay combat su fekkee li la fay yaakaar nga ni baax na mën nga jël su fekkee tamit yaakaar nga ni tamit baaxoo tamit nga toog xaaraat beneen promoteur rek nga xaar tamit tenter waat sa chance beneen promoteur Aïcha dañuy dem euh, ba tey si super classe bi Fass génn Khalifa Dia Khalifa Dia nag nee na Sa Thiès du adversaire bi nga xam ne ni mooy Gris Bordeaux parce que adversaire du Gris du kenn ko dul Balla Gaye magu Sa Thiès comme nag comme lu doon wax rek démb waa Balla Gaye rek waa kër ñoom Balla Gaye rek noo doon wax te nag ki nga xam ne mooy Khalifa Dia di manager ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux génn na wax nee na ñoom seen adversaire nekku Sa Thiès ñoom ñoom kii la ñuy gis mooy mag ji muy euh, Balla mais tout à fait normal parce que gisoon nañu combat Gris Bordeaux ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye ni mu terminé woon par point la la euh, Balla Gaye gagné ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux donc nag occasion la mu nekk combat clarification xëy na côté boobu la Khalifa di waxee su fekkoon combat bi amoon na chute xëy na Xalifa dina waxee neneen ni mu di mu waxee tey mais soo gisee mu ne ñoom bëriwunu ak Sa Thiès combat Sa euh, Balla ak euh, Gris Bordeaux combat bi desoon na leer ci côté Fass mais euh, waa kër Balla Gaye moom jàpp nañu am nañu ndam ci kaw ki nga xam ne muy waa Fass. ndekkuma dañuy continuer ba tey ci lamb ji dem ci Naar Touré Naar Touré nekk doom ci ki nga xam ne ni mooy ndeñ ci yàlla tubaabu jox moom nag bëre woon na fi ay temps dem États-Unis dellu si na nag ñëw nag lancé ay défém ku si mel ni ñoom Sa Thiès ñoom Yékini Junior ak ki noonu. <laughs> naature ban. mel ba jooy États-Unis man pour man naature bàyyi na bëre ah waaye ba tey rek xam nga tamit comme que yaay nga ba léegi amagul 45 ans am na am na droit tamit toog fu mu toog rek di laaj ay ay ay kii ay adversaire mais tamit reste à voir est-ce que ñooñu mu laaj daañu bëre ak ñoom est que tamit du perdre repère parce que tamit naar bu mu demee yàgg na de donc dañu xaar rek ni ñu nañu yónni yàgg ba xam. <laughs> ndekk moo ñu daal di yéen yàgg dem euh, tam ba tey seeti ki nga xam ne ni mooy Moustapha Gueye foofu ca sunu lamb Moustapha Gueye ñëw tey sunu lamb ñëw tey ci moom ak euh, ndam mi nga xam ne am na ko ci kaw euh, séeréer yi maanaam ku ci mel ni docteur fay Ibou Ndafa ah, Aline Diouf ba si ki nga xam ne nii mooy Langsane Mam Njamba ñoom ñëpp mu daaneel leen nag mu tuddee ko le bureau des séeréer maanaam moo mën moo mën séeréer yi waaw comme ni ñu ko waxee rek tey sunu lamb lu nga ko waxee moom ngaa tas na écurie séeréer ndax mbër yi mu fa daan yëpp euh, ay séeréer lañu donc Moussa Faké mën jàpp aussi moom mooy bête noire u séeréer yi mais tamit euh, nañu jàpp aussi am na beneen séeréer boo xam ne sonal na ko torop ki nga xam ne mooy euh, ki nga xam ne moom mooy Tyson parce que ba si benn interview bu mu accordé woon ak sunu lamb def na woon tey ji Tyson tax tey su ñëwaatoon Euh, moom du bëree ak Tyson parce que amul chance si moom te jàpp na ni Tyson moom mooy bête noire su fekkee nag nekk na bête noire yenn séeréer yi moom tamit jàpp nañu aussi beneen séeréer nekk na bête noire am moom non moom sax match bi moom mooy loolu combat bi arbitre CNG daal nee nañu match nul la nañ jàpp ne match nul la rek ndégg euh, ma ñu dem euh, fële record abu andir ñu tey ki nga xam ne ni mooy Koña Koña de nekkoon mbër nekkoon fii xale boo xam ne amoon na lu mu commencé woon wane dafa préféré quitter li nga xam ne mooy arène bi pour l'instant dem États-Unis immigré ji waaw est-ce que tamit naa waru topp rek tànk Konia topp États-Unis boobu rek xam nga def si ay business am waa gis nañ si fan yi nii si site internet yu bëre gis koo Konia ak famille am ak ay doomam ak jabaram donc xam naa tamit dafa choisir c'est une nouvelle vie de Konia xen tamit gis na fa loo xam ne tamit yaakaar nañu moo gën làmb ji il a préféré làmb ji dem dem fi nga xam ne moom mooy États-Unis comme la ñuy wax rek benn vie dooreel am foofu nañ ko ñaanal yàlla rek comme que loolu la choisir ñu ñaanal ko yàlla rek xëy na fa la wërsëgam nekk voilà. waaw euh, léegi mu ñu des ba tey si làmb ji ak euh, ama neex instant yi gis nañu situation làmb ji. gis nañ situation dëkk bi mais Amanekh nag moom il n'est pas resté les bras moom dafa ñëw ne euh, am na beneen euh, activité boo xam ne lancé na ko mu ñëw andi li nga xam ne mooy gaal jënd ko ay plus de 30 million fas yéene see liggéey jox ci tamit ay xale ñu liggéey. Amanekh la si jëndee gaal wàcc na lébu bu jënd gaal wàcc na euh, donc c'est tout à fait normal dafa delloowaat rek buy boom buy boom. buum si mboy woy ba euh, Aïcha Faye donc c' est normal lébu bu jënd gaal moom kenn du na ko félicitation donc c' tout à fait normal comme lu ñuy wax rek euh, comme lu Alioune Sarr di wax rek ak yenn mbër yu bëri euh, yenn acteurs yu bëri nee ñu mbër waru jàpp rek si làmb ji ndax su làmb ji amee problème rek na ngay am problème moom nag il a benn parade maanaam làmb ji mi ngi commencé soox wala boog difficulté làmb ji moo tax il a trouvé beneen beneen parade wut wut gaal jox ko ay mbokk ay mbokkam nu si liggéey mu indi ko rendement si làmb ji doxalee rek mu jéem a jàpp si jàpp si gaal yi jaay jën yeeg yooyu noonu. waaw ba tey ko ñu jeexee ak eh, ki nga xam ne ñi nga xam ne ñi ñooy Lions yi doon représenté Sénégal ku mel ne Adama Diatta ak Isabelle Samb ñoom nag tey ñëw nañ ci record di kaas li nga xam ne nii mooy manque de reconnaissance bi nga xam ne ñoom boobu ba léegi moom la ñuy dund. xanaa répété waa rek lu Alioune Sarr wax parce que fan yi Alioune Sarr génnoon tamit waxal leen tamit li euh, moom tamit def benn cri de cœur si ki nga xam ne mooy Isabelle euh, sambo ak aadama Diatta nee def nañu lu nekk si représenté nañu fu nekk fi nga xam ne mooy euh, Sénégal yóbbu na yóbbu nañu drapeau Sénégal fu nekk ba dem nañu sax ba Jeux olympiques kon nag seen normal léegi nag nguur gi mun leen geesu c'est vrai que football mënu yem ak euh, làmb wala euh, làmb nu yem ak li nga xam ne mooy basket mais tamit représente drapeau Sénégal vert jaune rouge la ak étoile bi donc képp koo xam ne représenté na Sénégal la yoon la ñoom tamit ñu ñu laaj li nga xam ne moom la ñu yellool comme lu Alioune Sarr wax rek euh, ñu leen jox daal la ñu yellool donc xëy na Matar Ba comme que Alioune Sarr génn aadama jaata génn ak ki nga xam ni mooy Isabelle sambu génn xëy na Matar Ba ak situation bi su génnee dina leen gëstu woo leen boog def ak ñoom ñu ak teranga ba Aïcha asalaamaaleykum ba li lañ andiloon ñi nga xam ne ni ñuy suivre euh, seen revue de l'arène di leen ñaanal euh, jàmm fu ngeen ci nekk di ko ñaan si képp koo xam ne rek euh, yaa ngi si àddina bi ak corona bi nga xam ne lëmbe na fi ñu ñaan yàlla mu musal ñu ci mu muccal ñu si ñi nga xam ne nag ñoo tëdd si hôpitaux yi yàlla jële leen fa ak jàmm ba ñu dellu seen i kër ñu ñaanal ñëpp jàmm xarit yeeg ñëpp di nuyu nag Babacar di ko wax wéetal nga ñu mais nga seetal ñu teneen bu baax foofu ci ak yaay Babacar xanaa yow waaw ah, waaw ndax fàtte woon naa monsieur moom sa sa doomu nijaay la ah, Aïcha Faye yaayu Pathé maa ngi lay nuyu di la gërëm donc comme li nga wax rek nu eh, ñaan ak yàlla musal na si ki nga xam ni mooy corona. nga xam ne dem naa sax ba aji màkk bi sax ren amul nga xam ne kon corona mbër bu dëgër la dëgër bopp la nu ñaan yàlla daal mu génn fii Sénégal génn daw daal dem ba ba géej. mun mu nekk fa euh, bala euh, loolu nag si lool la leen tàggoon nag di nuyu sama yaayu mère so nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Asta ne DG Barama Chéri Khadija Diall di nuyu samay budcu Maam Jaara Penda Rokhaya ak Grand Fallou maa ngi nuy di nuyu sama Baye Fall depuis États-Unis euh, Abdou Gueye papay Sita Baye Fallou jàmm gan di nuyu ki nga xam ne am mooy Asek Chéri Khoutia Seck depuis Italie aussi maa ngi koy nuyu ajafee daal nuyu mbokk internet yëpp nuyu aussi Chéri Teneng bu subaa jàmm